salli ala muhammadin sayyidul asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñu safoo Dakar bés di ñu si teewloo saa su tey nag ñu dugg si koor gi di ñaan rek ñu tàmbale ko si bisimilahi rahmaani rahim mottale ko si alhamdulilahi rabil alamin tax na rek ba ñu dalal tey oustaz Al Amine Dramé ba ñu ko dalalaat sax lay wax fas yéene waxtaan nag moom ci ponk yu bëri rek si lii di weer wu sell wi di weeru koor donc laata ñuy tàmbale dama koy nuyu oustaz maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar bàyyi la nga nuyoon toog ami internet yi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu soxna Amina maa ngi lay nuyu di la fay di fay seen mboolem ñi nga xam ne ñu ngi leen di seetaan fu ñu mën a nekk ci àddina bi di leen ndokkeel ñoom ci weeru koor wi ñu fas yéene tàmbali ko si jàmm ñaan yàlla mu nangul ñu ko nangul bépp jullit yaa rabbi waaw man démb laa woor euh, parce que keroog euh, alxames ci guddi ay booru vingt trois heures yooyu laa jot ay xibaar yu jógee Saalum comme man Saalum laa dëkk euh, daanaka dëkk bu ñuy wax Bouchra dëkku sëñ Ahmad Ndiaye Bouchra kon kilifa diina gu mag ñu ne gis nañ foofu weer wi beneen bi waa jaamal xam nga jaamal tamit si këru diine yi ci la ci la ñu bokk te foofu ñun suñu genn wàll lañu parce que Dramé ak Cissé la waaw ak dëkk yu bëree bari ak ay imaam yu ko gis dëkk bu ñuy wax Njóobeen Taaleen yooyu yëpp daal bi ma ko boolee gannaaw gi ñu yónnee ma benn euh, audio boo xam ne imam euh, Seydou Nourou Tall bi jiite mosquée omarienne euh, xibaar yi mu jot ay nit ñu ko gis woo ko boobu laa ne incha allah man damay woor suba moo tax man démb si àjjuma ji laa woor waaw euh, xam nga xibaar moom boo jotee xibaar yu la doy ni ko lislaam waxee muy ruyatul adlayni ñaar ñi maandu buñ ko gisee rek mën na jullit yëpp mën nañ ci sukkandiku woor parce que jullit yëpp mënuñu ko gisandoo ñenn rek ñoo koy gis ñooñu ñi ci des doyloo leen comme ñaar ñu maandu ëpp na ko mais lii ay jamaat mustafida la ay mbooloo yoo xam ne bokkuñu gox yu ñu dëkk ñii ñu ngi dëkk Saalum ñii ngi dëkk Siin ñii ngi dëkk euh, Kajoor ñi Bawal ñooñu bi ñu boolee yooyu yëpp euh, ci la ñu sukkandiku daal di woor waaw. Hmm. waa aminta ñi nga xam ne ñooy njëkk a woor di ñu baax lañu ñu bëgg diine lañu ñit ñi mujj a woor aussi nit ñu baax lañu ñu bëgg diine lañu mais dafa am foo xam ne ñoom ñaar ñëpp ñiy njëkk a woor ak ñiy mujj a woor gàttañ loo li ñu war a def defuñu ko ba léegi mooy dañu war a toog waxtaan parce que commission bi nga xam ne sunu wayjur Cheikh Iyane Thiam moo ko jiite commission boobu amatul raison d'être parce que amul benn crédibilité jullit yi dégloo tuñu ko góor gi mag la màggat na li mu waroon def def na ko ñi fi nekk actuellement ñoo war wut beneen commission boo xam ne murid yi dañ ciy gis seen bopp tiijaan yi gis ci seen bopp ibaad yi gis seen bopp ku nekk wut ñoo xam ne doyloo nga leen ci seen xam-xam ak seen njub ak seen ragal yàlla ñu former beneen commission mais feeg loolu amul ku nekk da ngay am sa commission bopp te loolu gàcce la ci Sénégal dëkk yi nga xam ne ñu bëri dañ daan ñëw fii ci Sénégal di jàng si fii ñu sax problème boobu réglé nañ ko waaw ñun ñoo ci des daal ci côté boobu donc faw ñu am beneen commission boo xam ne bu crédible lay doon boo xam ne commission yi fi nekk yëpp ci réew mi dañuy nangu mu tas mu seey ci commission boobu nga xam ne day représenté tous les musulmans du Sénégal te loolu nañ ko am nañu ay jumtukaay yoo xam ne bu ñu ko utiliser commission boobu dina taxaw mais sinon da ngay gis commission tijaan yi fële commission murid yi fële commission xaadir yi fële wala ñu ne tey tarixa yi ñoo woor suba ñu ne ibaadu yi ñoo woor loolu du yoon gàcce la boo demee Côte d'Ivoire am na ay tarixa yu fa nekk am na ñu nekkul ci tarixa mais wut nañ commission bu leen boole ñu ngay woorandoo di woreendoo dëkk yëppoo ko am dëkk monde islamique bi foo dem ñii dañuy nekk si tarixa yi ñii duñ nekk si tarixa yi mais loolu nekkul mukk gàllankoor pour ñu jàppalante ci seen biir dimbalante ci seen biir parce que am na yoo xam ne usul yi ñun ñoo ko bokk réew mi ñoo ko bokk intérêt réew mi ñoo ko bokk kon li kii lële la ak kële lële la yooyu amul sance yàlla li muy xool mooy mbaax ragal yàlla jub topp yonent bi sallallahu alayhi wa waa jàpp naa ne ku nekk bañ ne war na ci mën a bañ a xeeb boppam man duma ci xeeb sama bopp maa ngi ciy dox maa ngi ciy wax waaye suma ma sañoon aussi kilifa yi nga xam ne ñi ëpp ci njaboot yi ñoo leen jaboote ñu jël initiative bi dox ko tey xalifa généraux yi bu ñu amoon initiative boobu mooy gën a yomb tey par exemple suñu wayjur sëñ Babacar Sy Mansour su amoon initiative boobu woote ko woo tarixa yi woo association islamique woo imaam yi ne leen dama bëgg ñu dajee ñun ñëpp def benn séminaire boo xam ne ci mbiru weer la lañ fa tënkee mu engagé jullit yëpp bu ko wootee danañ ko wuyu sunu waajur euh, sama papa sëñ Muntaqa bu ko wootee woon dina yomb lool dina yomb lool parce que moom âge bi mu am benn ñaareel bi niveau intellectuel bi ak bëgg diine ji ak worma bi ko nit ñi wow ëmbal bu woowoon julli dina leen dama leen a soxla ñu wuy ji ko Touba ci kër Serigne Touba foofu noonu mu tëj leen fa eh, balaa ñuy génn dinañ am solution amul sax werante man loolu yàgg naa ko gëm dinaa ci wax ak sama ay xarit yi nekk ci eh, intellectuel yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Touba ak murid yi eh, ne leen rawdu rayahin par exemple nga xam ne day dajale mboolem jullit yi ci si ci at mi ci màggal gi mais foofu mën nañ fa am solution yoo xam ne yii dinañ ko régler man li ma métti rek mooy lii ñuy jooy dañoo am solution yi mu jegee ñu lool te nanguwuñ ko jël ku nekk toog di xaar sa morom loolu mooy suñu problème mais bu ci kilifa yi jubloo te yaakaar naa ne incha allah du yàgg danañ ci jublu parce que lii mëntu continuer mëntu continuer muk te wolof njaay mooy wax na réeroo amul ñàkk waxtaan moo am danoo waxtaanul te il faut ñu dajee toog waxtaan kàngam yi borom xam-xam yi waxtaan daal di am ay solution incha allah. man non aminta man duma ma jiite commission man munu maa jiite commission xam nga man euh, kii la doom la njaboot la fa ma fa ma dëkk sax nga xam ne mooy sama famille di famille Matar Kala Dramé nekk ay kilifa diine ci salum ni ñëpp xam leen dama am ay kilifa dama am ay baay am ay mag ñi ma jàngal nekk man du ma jiite man kañ damay def en tant koo xam ne nit ñi ñu ngi lay déglu euh, dégg nga am na ni jullit yoo xam ne soo waxee ñu déglu la yow li nga am ci xalaat bu baax da nga koy wax tey moo tax ma koy wax rek xëy na dina yegg ci kilifa yi ñoom ñoo koy dox kilifa yi ñoom ñooy jiitu ñun ñu topp ci seen gannaaw ñun ay taalibe lañu ay njaboot lañu mais bu ñu amee xalaat bu baax nag dañ koy wax incha allah. waaw Aminata defe naa wax naa ko waxati ko boo demee ci réseaux sociaux yëpp ci àddina bi di fa fekk samay wax samay position li ma gisoon man mooy jàkka yi ak jumaa yi ci weeru koor wi nañ dem julli ji parce que mën na nekk nekkut ne bu ñu demee ci jàkka yi daf fay naafila di fa julli jumaa feebar bi day yokk loolu ku ko wax tegoo ko fenn bu fekkee dem nañ ci jàkka yi ak jumaa yi te jëluñu matukaay yi ñu war a jël feebar bi mën naa yokku aminte yaa ngi nii xoolal yow yaa ngi yor gant takk yaa ngi yor sa masque man su may génn damay yor samay masque sama waa kër sa waa kër ñëpp yor ay masque dool jël ay matukaay bu ñu jëlee matukaay yooyu dem ci jàkka ji ñu ne képp kuy ñëw ci jumaa ji na nga takk mask màggat yi jéggal nañ leen bu ñu ñëw ci jàkka ji parce que feebar bi màggat yi la gën a yàpp képp koo xam ne sentir nga wéradi ci sa yaram bul ñëw balaa ngay ñëw na nga jàpp sa kër bu kenn di ñëw ci jàkka ji di fi jàpp na ngeen raxas seen loxo ak saabu balaa ngeen di ñëw matukaay yooyu buñ ko jëlee wallahi problème du am beneen bi bu ñu ragalee sax naan moketu jàkka ji nañ ko lalli ñu ne képp kuy ñëw ci jàkka ji wutal sa sijaada bopp nga xam ne da koy lal boo paree nga lem def ko si sa saak dellu ñibbi kër ga allahumma salli ala muhammadin sayyidul wara